faatu xem dellaa baarikaal mbaa defoo dara mën a ko ma mu nga sedd foofu ba tey yaa ngi ca mbedd ba tey man jommi naa galaas yi le xëy àddina moo doo ñu seen galaas yi le gannaaw mu ca mbedd foofu ba tey ah galaas ya newuñ fa fi ne ah fa ñuy ñëw ka ah xamu ko ne fa ñu ñëw ko dem di ah lu ma sa xam jàmbare kay korobaay bi dee fi ne korobaay bi fi mu ne foofu fi la de ni meloon bitim réew foofu noonu la mel fi ne fii mu ngi mu ngi lakkal ba bugga de dëkk bi yëpp ngi di di jàmbatu korobaay bi de taxam nit ñi génn àdduna sax ñoo xam ne fañ foog ne korobaay bi ko rek waa xam nañuy wax ne du dëgg nguur gi fay tappale ñun daal fi mu ne fi jaaxle rek xamuñ ci xamuñ xawma ci do xamuñ ci buum ci do waaw ha ha mu ngoog man kay danaa takk masque bu ma génnee du may nangoo génn sax ci néeg bi lay toog ma man loo taxutoon ma di la xoosa góor góor la nga ma doon nga nga ma xooxoon di wax noonu ne fa la bugg moom laa lay laaj mbiram fa am góor googu waxoon ne fa la bugg ay weer ci gannaaw ah yow de déggatuma la nga wax dara ci mbiram lii lum do mu xanaa faatu fi mu ne yow nga du sëy doo xamaat jëkkëtam loo koy xaarloo xeere di ko xaarloo fi ne ba dina tukki haɗuno si jiya sile kaari hoppiile fo ko jaram ha man de sa jikkoy tubaab yi la jaaxal na ma jikkoy tubaab yi de waxuma ne bu ko roy waaye tubaab yi seen jikko yi foog nga ne yépp bu fekkoon li ñuy roy la konoon dinañ ne di li ñuy xaru tubaab yi la moo li ñuy xaru ak li ñuy dorogu ak di naan sàngara su fekkoon seen jikko yi yëpp baax de foog naa àdduna du àdduna du leen du leen naqadi noonu ba ñuy def li ñuy def kon foogoo boo leen di roy fa xam foo xemam man de suma xawoon ne lii la sax duma la jàngal iskul gannaaw iskul bi moom fi mu ne nattu bii la moo iskul tere naa siyam yow góor gi lee nga ne bugg na la te li nga gis ci moom yëpp baax na doo jàpp si yàlla te sëy ak moomam ragal bi ngay ragal nii xaalaaxira rek a jara ragal de xaalaaxira bàjja bi rek a jara ragal te kenn xamu kañ lañuy dee kenn xamu kañ lañuy dee boo dee it sa li nga def lu baax rek lay mën a dugal àjjana soo xamee jëkka fi mu ne jaamu si yàlla waaye soo toogee di ragal nii di ragal nii ah man de jaaxle naa may may may tëdd ba guddi ba jóg di la julli di di ñaan di di di di di jaaxle sa mbir bay waaja dee ah man de jaaxle naa li sëy bu tas rek la góor yi yëpp xemuñ nangul mu takk la rek nga jàpp si yàlla te bu la takkee nga sëyal ko sëy bu baax rek te jàpp si yàlla te muñ man naa am mu doku baax yenn ragal yi de gëmu di yàlla la yow fi ne lu tax nga nga ngay ragal sax laa xamul ah xamoo lu tax ngay ragal waaye ngay ragal rek yow ngay foxantu nga xalaat ko ta ta ta ta ta xasaw bitim réew gi lay yàq ka saara xay gàlli nga walla ne fii lenk naan nga ragal mag mu xem ni yow fanweeri xat xam nga ko di ragal góor la mu góor moo am lañ ciy ragal góor gu la bugg nga ragal ne fay da bon waa nooy ragalee ne fay da ku bon te te xamoo a ku bon la am dee demal rek nangu su dee ku bon it nga def lu ne mu te nga xam ne nattu yàlla la rek nga nga nga nga nga boo ca ma ne ne ca boo ca ne ba xuti keneen waaye ragal mi bay war a dee ci te doo sëy mbala nga ne bitim réew foofu di njaaloo ko def yow man yónni ma la bitim réew pour ngay njaaloo de su fekkee ne ne yow foofu di njaaloo it ngay toog foofu noonu kenn ci sedd bi ci galaas yooyu man may tëdd ba guddi di la gént may tiit ba di la gént galaas yooyu yow kenn nga bankali ko rek sangu ci sangoo ay mbàjj ci galaas yooyu xëy xaar dina li dee nattu la kon doo ñuy séem boo ne woon foofu ngay fii ngay ragal kon de ma jàpp si yàlla xa fa bëri nattu faatu su dee yàlla fa wax ne yow ngay jàng ba wàcc taxaw rafet jigéen ji joo xam ne ku la gis bugg la nga taxaw rafet na ngay ragal góor di ñàkk fayda ngir góor gu bon goo xamoon mu yàqale sa xaduna def na yu bon tax nga taxaw ne leen képp ne ngay ragal góor mag mu xam ne yow mel ni ku ne ko xam ñaari xat góor gu la bugg nga sànni ko ne ko maa ragal ma xam ne gàlli nag ak xala ko fa façon bu ne la ko yàllay wone waaw man day sëyal naa sa baay ta sonn xaw ma lu ma def yàlla babam di ma def li billahi xamal lu ma def yàlla di ma def lii yow fi mu ne nga mag gune yi war leen a jàngal luy muñ ak lu ak luy ak luy gëm yàlla nga di leen jàngal gëm di yàlla sa rakk yi yépp fi mu ne xam ne ragal la Thérèse ah ba bu set ñu may laaj faatalu ko Thérèse yaat ba tey ak ñi ko bugg yépp nu mu lu ma leen di wax man duma leen ñi may wax ne yow ngaa ragal man loolu rus naa koo wax soo ko rusuta wax man rus naa koo wax nga ne góor gi bugg na la doo dem jël ko te dem loo too foo di ké kéeméeral fukk na fukk fukkuural naan maa rëgal gàlli nga ta xalaku walla man nag fi ne bu ma xooti saa woo ma ñemee manit nga xooma naa bokk ci ñi ngay ragal de ñi ngay ragal nag dalee ko ci man fi ne naa bokk ci ñi ngay ragal gannaaw fi mu ne ngaa di bay ragal doomu aadama njaay yàlla bind sëpp leen ku la bugg moos nga di ko ragal kon ragal ma ma ngir yàlla ragal ma faatu feek fi mu ne nag uh, jëloo góor gi le mu takk la ragal ma boole ma ci ñi ngay ragal bu ma xooxati ci ay caaxaan bu ma ndax man li gàcce la sa rakk yépp di sëy nga toog foofu kémméeral naan may ragal waaw te xóor na ma ne ku dem sax yaa ngi njaaloo di ko nëbb bitim réew boo fa minee njaaloo dootoo séeti foofu ngay ne tubaab yi ñëpp di la xalay xalay yeere nga toskare waaw man nag yenn yi a ko gënal bu ma yónneeti bu tuut tabama feeg feeg yaa ngi ragal góor góor la bugg moos ragal ma manit bu ma xoxati wax naa la ko nag man may dem sa tool ya salaam wax naa la ko may bay suma gerte gale balaa moo booy salaam jéggal ma daal laa la wax gannaaw fi ne ngaa wéradi bay ragal doomu aadama njaay ngaa bugg a ko ñuy wax nga naan ragal ragaloo lenn ngaa yaa ko tey ngaa bugg a toskare te te te bugg a toskare sëpp naa la yàlla danaa la ñaan yàlla nga xala ko nag boo wecceekuwul jutuma doom juy toskare wax naa la ko nag salaam ku ma sa gis li ah suñu waxee mu naan maa ragal looy ragal nit njaay moo danañ ko ragal góor gu la bugg luñ siy ragal hey man àddina si la jommal na ma fay fen foo bugg a xalaku de moo tax muy ndaane jooy naan ragal moo ko tey barki salaatu faatiya xaaral mu ñu xoobaayam sax ñu robi ko ku mës a gis lii suma nijaay waaw man kay ay na yu xante sax laatalu maa ngi dikk ci tool yi maa ngi nii di dikk may laajte na ngaa bëgguma indi xaale la ndoxam wala wala bu fekkee ngeen a xiib ma indi leen ci rek meew meew mi jeexul ndax gune yi ndox mi jeexaluñ ko ma ne suma nijaay faatu de laa wax si mbiram bu ma bu faatu léegi la ma la ma di wax ak man faatu de ba tey mu ngi wax ne fa ragal pour xamaat jëkkët waaye faatu robbi nañ ko wala suma nijaay faatu nag waxal ak moom feeg seetut nag feeg feeg seyaatut bu ma xoo bu ma suur naa ko na ma boole ci ñi may ragal xamu defal ndànk de maa ngi ñëw waaw danaa leen indi xaale ndox ak cere meew ah dina wala man de mosuma gis li ah nit njaay moos danañ ko ragal nit ku la bugg mos nga di ko ragal ko mos a gis gune yi léegi yi la seen xewet wi la góor dan la bugg nga naan ma koo ragal ko mos a gis di ragal góor gu la bugg moo lii lumdo haddina see waaja tukkeem lii lumdo hey man jommi naa de lii de aw lay wax xam ne la fañ koy wax bu buggutee sëy gune góor yee gune jigéen yi yépp a xewal lii ibu hit bu yàggul lii la ma doon wax takkal jabar mu naan ma maa jigéen ñi ñu baax bariwul ñii ragal luñ fañ leenee waaja robi fañ leen di waaja robi ragal luñ taman nag fi mu nii nag gune yi fañ leen di robi waaye danañ def seen bopp nit ta xam jëkkër ku ci war a xam jabar dana ko xam mbaa ñu robi ko xaaral ma xoo ibu taxawal ma dem sa baayam ba pare sax